bees ñu door nawet njàqare la daal di jur ca jaaykat yu fare ci marché contrale bu Diourbel gannaaw ba ñu jànkanteeg ay jafe-jafe yu metti ndax ndoxu taw mi ci at mi ñu génn ñoom jaaykat yi fi mu toll nii ñu ngi yuuxu wàllu ngir moytu lu raw li ñu mel li ñu dund daaw. daje bi ko waral mooy jafe-jafe dañ koy dund bi ci marché bi yëpp jafe-jafe yi ñu fiy dund li nga xam ne nag mooy bi ci gën a pire nag mooy li nga xam mooy mi nga xam mooy inondation pension na daaw ba ren amul benn réalisation boo xam ne gis nañ ko ñu def ko pour di waajal nawet bi. niki daaw lu ëpp ci juróomi téeméer ci ay cantine ndox mi daf leen nangu woon ba tax ñenn ci jaaykat yi ñi daal di ndërmeelu ñeneen ñi ñoom daal di daw wutale ci yeneen bërëbu jaayukaay. kon fii nga xamante ne ñàkk ñu ma wax ak cent quatre cent xam ne lépp ndox lay jël gauche droite yëpp ba bi ñu jànkoonte ak ndox. te daaw bu ñu ko defee dem nañ ba nga xamante ne ñu bari ci ñun dañoo dem toog seen kër te la ñoo wax du leen wàcc ndax ku xëy joxe dépense bi kër. ñoom jaaykatu marché Ndoumbé Diop ñu ngi sàkku ci autorité locale yeeg centrale yi ñu wut ci ay pexe saafara ko ngir ñu moytu lu gën a métti lu ñu dundoon daaw. fi mu toll nii marché Ndoumbé Diop dafa nekk ci kàmb goo xamante ne bii instant bi amatul kenn koo xamante ne bii autorité la bu nekk ci dëkk bi muy autorité locale en commençant a le maire Malick Fall danañ ko ci épargner. ñoom ñu bëgg leen ji ñu jàpp nañu ba nga xam ne am ko wutal fu mu a dem évacuer ko ba nga xam ne dootuñu ñu waa Mass. waa Njaareem jooy yi Njaareem jooy nañu. te amuñu dul seen place yi te marché bi dong lan am marché bi rek lan yaakaar. ngir nag mën a indee saafara. ci càkku teefu ko njaaykat yi. loole nag day laaj ñu gën a mën a yaatal. li nga xam ne mooy bassin de rétention yi. nga xam ne jamono ji dañu fees dell.